ثم الصلاة والتسليم يفوق على مسك ورند على ذي الفضل والقدم وآله المهتدين الحيرة الكرامة المؤتمي سيرة المحتار والقدم بوك جلدي بوك عدو نبي بوك انترنت بي نيجي أمان بكتي نيوات سين إميشو بينا خمني مملون تودي خمسة دينة دي فارم فاتي لب لو خمني رك نيت نكو سخلة دينة دينة ñu leen ci nuyu bu baax di leen ci ziar di ñaan yàlla yàlla nañ yàlla boole nangul ziar waaye tamit di leen ndokkeel ci weeru sayduna muhammad salaay salaam ci bisu sayduna muhammad salaay salaam ci atum sayduna muhammad salaay salaam mi nga xam ni seydil xaaji malik waaye ne ko ni ko sururun fi sururin fi sururin wa aidun duna ayaadil uyun ñu nekk ci période yooyu nag gis ngeen burdu yi macha allah ak fenn fu ne boo fa demee nit ñaa ngi koy def waaye lépp yiw la rek jagleel ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom mooy lépp tey nag ñu ñëw fa yéene waxtaane juddoom moom Seyduna Muhammad maanaam bi mu ganesee àdduna nan la nature bi meloon bi mu ganesee àdduna loolu lépp nag mag ñi bind nañ ci Seydil Hadj Malick bind na ci Mouhamadul Busayri bind na ci Serigne Touba Mbacke bind na ci nitu yàlla yu mag bind na ci waaye ngir barkeelu rek ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag mi ngi juddu bisu altine ci weeru gàmm waaye fii chahri rabiixil awwali Cheikh Hadj Malick jàngal nañu ko. نفي الشعب يوم يوم الثنا المحتار حد حمل وقال السهل بن عبد الله ذو الوزن نانا تيخرو ابي ابي طالب بسو التيني نانا كلا سيدنا محمد ديك واي سهل بن عبد الله موم بروم دولنت نانا ليلى العروبتي nee na guddik àjjuma xàlla durru ci la wurus bi nga xam ne mooy seyduna muhammad ñëw fii rajabin mu tombeek weeru rajab su al munaadi yunaadi musmihil fahim nga gis nag koo xam ni bu dee wàllu woote moo gën a mën a jotal aji woote ja di woote ci gox yépp naan seyduna muhammad judd na seyduna muhammad judd na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu juddoo goxi asamaan yi nga xam ni jinne yi dañ daan dem di sàcc wax yu di ñëw yooyu yëpp yàlla dafa commencé sécuriser asamaan si loolu Muhammadul Busayri bind na ko moo tax nee na wootekat ba di woote naan tënëbbahu yeewu leen jug leen képp ku daan nelaw yeewul am na nural xat mi laylakum xadd la fii xiimatin min atharil xiyam nee na ki nga xam ni mooy mottali ràngu yonent yi ki nga xam ni lépp lu lëndëmoon bu ñëwee lépp leer mu seyduna muhammad nee na wàcc na léegi nag am nañ gan goo xam ne il faut ñu teral ko aca an attiru suuru leen an attiru gëttu leen xool leen parfo yu gën a neex ngeen indi ko laal ko wa baxiru suuru leen wa afrisu sajjaadaat te ngeen yaatal jotaay yépp lal leen sajjaada yi takriman alal xusami ngir telal aji bëri jiw ji muy seyduna muhammad saa sallam looloo waral yonent bi at mi mu juddoo bu ñëwee rekk weer bi mu juddoo bu ñëwee bis bi mu juddoo bu ñëwee ñépp fàq ñi wuti tiwaawoon ñi wuti kawlax ñi wuti cees ñi wuti Dakar ngir teral Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa benn mag nag nee na yonent bi ku ko tàntal lu tànt ba tuuti tuuti tuuti mu teew fa donte dafay def fraction de seconde dina fa teew def fa présence su paree doog a dellu ñu ni waaw tànt yooyu yépp ak ni mu bëree nan la yonent bi ñëwee di teewee ci tànt yooyu ñu ni jant bi ñaata dëkk lay fenke te jant bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ëpp leer ka shamsi fii kabidi samaa'i wa daw'uha yaxsha al bilad mashariqan wa maghariba looloo tax sayduna muhammad sallallahu alayhi sa sallam dina jaar fépp yonent bi nag at mu juddoo wala mu juddoo bis bi mu juddoo ab waab nee nañu malaaka yi nee nañu buntu asamaan yépp dañ ko tijji yàlla dani am naa gan gu mat gan tey am naa gan goo xam ni lépp luy fonctionner te ma bind ko moom moo ko waral ñu tijj bunt asamaan yi kazal jinaan tijj buntu àjjana yépp wa nuuru shams fil azam loolu lépp ngir terale ko yonent bi salaay salaam waaye dafa am lu am lu doy waar ci juddoom ndax bi mu ganesee àdduna am na ku ñu wax iblis keroog dafa am lu ko metti te iblis dafa amoon doole ndax moo ni woon yàlla ni ko fa bi izzatika si sa puissance ci sa kartan ci lay bewlo ñu bare thumma la atiyannahum min bayna aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an chamailihim wala tajidu aktharahum shakirin loolu la iblis wax yàlla dinaa taxaw seen kanam taxaw seen ginnaaw taxaw seen ndeyjoor taxaw seen càmmoñ di nga fekk lu ëpp ci sa jaam yi ma détourné ne leen yàlla ne ko nag inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan waaw xanaa ñi ma neex ñi ma neexul waaye am na ñoo xam ne ci kaw lañuy jaare doo am accès ba ñëw ci ñoom pour mën leen a détourné moo tax nee na iblis moomu doole ji mu amoon yépp da ko yóbbu ci aadama xeex kook moom ndekete am na ku gën a doy waar aadama ci leer am na ku ko ëpp leer am na koo xam ne mooy patron aadama moo tax aadama judd muy Seyduna Muhammad ndax nee nañu Seydi Hajj Maalik nee na yàlla yonent bi la njëkk bind ka aadama wa kaana aadam na nafsi wan nasam moom Seydi Hajj Maalik bind looloo tax doole ji mu amoon yëpp yóbbu ko ci aadama nee na keroog bu yëgoon réservé doole jooju bàyyi ba yonent bi ñëw mu xeex koog moom waye malheureusement bi yenen tibi ñëw fekk na dolem wàññeeku moo tax bi yenen tibi juddo mom iblis dafa am lu ko metti kéro onku la def wa anna mom la sayyid Hajj malik wax wa anna ranna al-lahinul lxabb yahduruhu junuduhu wa huwa hadidun min as-sadam neena iblis kéro dafa onku iblis kéro dafa ranjantalu joy ñu ni ko lo joy muni sama doole ji ma amone yépp yóbbu naa ko ci aadama ndekete am na ku gënoon a ëpp leer aadama di patron moom laa waroon naxaar muy Seydunaa Muhammad mii moo ma tax a onk moo ma tax a jooy dajale mbooloom nag di onk ndeysaan di tiit waqaala waylakum ni leen ñu ñëpp perte nañu doole ja ñu amoon yépp jeex na ah kartañ ga ñu amoon jeex na xumilat yaa waylakum woy la waylakum yaa ummati yéen mbooloo yi nga xam ne yéen a ma toppoon ñun de woo naa suñu perte woo naa suñu tuskare xumilat fii hazihi nee na weer bii de wala bis bii wala at mii de nee ëmb nañ ci ki nga xam ni durratun wurus la min axsani tuwam moo gën a rafet ci doom moo gën a rafet ci wurus iblis nag xam ni pexe amatul parce que mënalul dara yonent bi waaye li ci doy moy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu juddoo dañu xar dënd bi génn ci benn tomb moom la Muhammadul Busayri wax neena yonent bi bi mu juddoo suqa an sadrihi wa ahraja minhu mud'atan inda ghaslihi sawda wa sadruhu hatamat yumna al amin وحد أودع ما لم tasi lahu amna سان أسرار الحطام فلا الفض ملم به ولا الإفضاء ألف النسكة والعبادة والحلوة طفلا وهكذا النجبا وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في عبادة الأعداء لولو محمد البسيري بن لأن يوننتي بدن يخد النبي جند بن تومبو بنيول بو خمني ينوكو ليدي تي الشيطان لينك أكيب كو خمني دنگا تكوك شيطاني désinstallé ko ba mu set wicc ba nga xam ne benn jikko bu suufee nekkul ci moom waaye ki ko doon def keroog di def opération boobu mooy Jibril bi ma ko xaree génne ba pare raxasaat ko ba mu set wicc installé ci ay xaqa ay ay ay asraar ay secret yoo xam ni codé ko moom rek moo ko xam jëlaat tënd bi defar ko changé ya ca nekk dugal ko ci laboratoire boo xam ni lépp loo xam ni jikko la ju suufee da koy raxas ba mu set wicc ba mu ko defee ba pare nag installé ci loo xam ni moom rek moo ko am benn yonente amu ko moo tax mu woy ni saanun asraaruhu lxitaamu falal faddu mulimun bihi wala al ifda nee na nee na dënn sayduna muhammad dañ ko ñongale ak i asraar ay secret nee na yonent bi musul mer ba wone ko loo ko mus a def ci lu bon du la woon ni man maay rasulallahi musul yëg boppam kazalika ba wone ko nee na yonent bi ku alifun nuska wal ibadata wal xalawa nee ku takk ku daan takkoog jaamu yàlla la ku daan takkoog wéeti yàlla la ku daan zikkar la lu baree baree bare bi muy nekk xale nag nee na tànneef rek la mën a mel nee na wa isa xallat alhidaaya qalban nashitat fi ibadati al nee na yàlla bu installé ci xolu jaam bi ngëm installé ci tànk yi wala ci cër yi ah kàttan goo xam ni jaamu yàlla rek lay def nee na day sawar looloo tax mu ni sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu juddu keroog iblis dafa am lu ko metti waaye bi mu juddoo moom sayduna muhammad dañu ñëw di ndokkeel ki ko ëmb muy amina شيخ حاج مالنين من بعد ما حد حلا واو يقال له ها انت حملت بدر سيد الامم اذا ودعته سميه محمدا بما امي جيروم بن وير تي لنجو جوخ توربي نيكو كيغا خامني نين فوك جيجين كين كو تي نيك نيكون ان نيتا با ني ديفو انونس بي مو ياكار مو جور سيدنا محمد ياكو جور كين جورو كو تي نيوم نيوم نييب سين ياكار تاس نيوم نييب فاتو فاتو معنويا يا نك ياكو امب bu juddoo na ko tuddee Muhammad te na nga nëbb tur bi kon teel nañ koo jox tur waaye nag bañ ko ba keroog ba mu dikkee ndeysaan ñu bari dañoo ñëw di ko ndokkeel ay yonent ay malaaka ñoom ñëpp ñëw di ndokkeel Amina ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh El Hadj ko boo demee kazaalika Muhammadul Busayri wax na ko ci Hamziya ndeysaan حواء فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء waaw amina ñëw di ndokkeel xawa ëllëg xawa war koo ndokkeel waaye amina dem di ko ndokkeel ndax yow yaay yaayu yónent yépp kon maa ngi lay ndokkeel sa doom ju tedd ji kazalika xawa ndokkeel adama ci lu tedd li nga xam ne moo ko am. nee nañu nag ñi ko ndokkeel bari nañu moo tax biñ ko laajee Maodo kan ak kan moo ko ndokkeel mu ne wajaa aadamu tabshiran aadama ñëwoon di ko ndokkeel chiichun laha chiich ñëw di ko ndokkeel kazalika idrisun idris ñëw di ndokkeel amina nuuxun yonent yàlla nuux ñëw huudun huud ñëw alxaliil khalilullah mi nga xamni ibrahim dal di ñew simi mandar loolu summa zabih ah ku ñu rend ka ah dal di ñëw kazalika ismail kalimullah ki ñu tuddé interlocuteur par excellence yonent yalla Musa, mom lañ tuddé kalimullah kazalika mu ñew ndokken ko kilmatuhu yonent yalla isa dal di ñew min ash-shahr ci wër bu ñëk bi في الترتيب كي تفضل لا تهمكم بالدف دفتر لا تحين سيد الحاج مالي على النبي وعليهم أجمعين سلاما ربنا دائما عما بصحبهم نينا على النبي يلا نكتو ينتبي وعليهم أكنيوم صحابة يك تنفيك نيوم نيب أجمعين مولي بسين سلاما جم ربنا ببايكو سنو بروم دائما بفاو عما بمرت بصحبهم نيسين صحابه kon gis ngeen mbokk julli di yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ganesee aduna événement bu rëy won woon la demee woon kenn ku ci nekk ñëw nga ndokkeel Amina kenn ku ci nekk indi sa participation ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam tax yonent bi yàlla moko defal lu mu defalul kenn mo gën ñëpp Muhammadul Basiir wax na ko faaxal nabiyiina fii xalqin wa fii xuluqin wala nu daanuhu ilmin wala karam ne na yonent bi raw na ñëpp ci jikko ak tedd nga kenn du ko jóge ci xam-xam kenn du ko jóge ci tedd nga yonent bi raw ñépp ci qualité physique ak qualité morale kenn du dab Seydina Muhammad moo tax arab bi ba ñëwoon ca moom def tawassul waaye tamit def ay xasida ci moom ngir yonent bi dimbali ko ëllëg ñëw ca bàmmeelu Seydina Muhammad نكو يا خير من دفنت بالقاه أعظمه فطاب من تيبهن القاه والأكب نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجد والكرم نانا يو يا جن يخ سيخ يتدي سوف سومو موسى سوف يخ يومو موسى سول سيخ يتدي موتي جن سوف دوتول dootul suul wala dootul resevoir yax yu tedd yu mel ni sa yax yi yow Seydina Muhammad yow yaay ki nga xam ni yaa tax tund yi tedd yaa tax jànj yi tedd yaa tax lépp tedd sama bakkan bii nag jël naa ko jote la ko ngir ëllëg nga mën ma ràbb ci kanamu yàlla yonent bi salaay salaam feeñu benn saxaaba ni ko waxal arab yi boobu doon way nangul nañ ko ràmboom kon gis nga kooku mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax ko ci alquran ni muhammadu rasulullah wallazina maahu ashidda ala alkufar wa ma muhammadun illa rasulun سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يو يب يالا داي ووني تفعلم كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويننت منين لكو دقل كي لولو لب موي سبحان الذي أسرى إسكي تدنا سلو يالا بيغا خمني أسرى موي رينيانا بعبده يننت منين باتو جام با يالا إتليزي فوف موكو نيخ جام بيغا خمني موم لرينيانا ليلا قد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى جلكم مكة يوبكو بيت المقدس allazi barak na xawlahu bërëb yooyu nga xam ne dañ ko barkeel li nuriyahu min ayatina ngir ñu won ko suñu preuve kon gis nga yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li mu am kenn amu ko kon yàlla ñu yàlla taas ci barkeem tey nag dañu ñëwoon rek indil leen juddug sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam yi ci xew ci ay mbégte yi ci xew ci ay mu'jizaat incha allah dina ñëwaat ak bu baax a baax a baax a baax ci yeneen bunt yoo xam ni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 را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون